tënk sa bopp si jaam moo taxoon tubaab bi noot suñuy maam génération bi ñu toll nag weesu na loolu dañoo xam ni réew mi rek lañu am amuñu feneen amuñu beneen nationalité bëgguñu ko sax réew mi nag doomu réew mi koy defar te bokk na ci li koy defar ci doomu réew mi projet bii ñu leen andil joxuñu leen xaalis sexaluñu leen lem menacé wuñu leen mais di leen woon benn benn ngeen di gis ba tey ñu am yaakaar ne ñu nga ca cappaandaw Macky ay juge ak ay procureur ne ñoom ñooy taxaw ne tey loolu du am ci Sénégal buñ ko nangoo rek ñun ñoo nangu ñu tënkuñu cib njaam moo tax nag ñu ne na génn suba le 29 gannaaw suba le trente ak le trois avril bu ñu kenn essayé boole kenn ndax dangay ngay dégg ñu naan waaw ñoom respecté wuñu république bi ndax date bi kenn waru cee manifester. Macky Sall dafa respecté république Macky suy tëjaatee daf ci xool luy trois avril ak luy 4 avril suy dóoraat ak suy dóor nit ñi ay bal daf ciy xool bën bës sañu nekk dama ne ku mën a xeex na xeex ku mënul xeex na maadu ci li ñuy xeex waaye kenn duñu tënk ci yooyu ñenn ñi dañ naan waaw 4 avril feetu armée bi la kon weeru ko ñun 4 avril kenn tuddul 4 avril 4 avril suñu 4 avril ñun ñëpp la te armée bi kenn tëpp ëppalewuñ ci kenn gënuñoo fonk armée bi ñun dañoo xam lan mooy armée waaye li ñuy xeex bokkut ak loolu te gëm naa ni li ëpp ci armee bi ànd nañu ak ñun ci li ñuy xeex dama gëmuma ko sax dama dama cee am yaqin moo tax bu leen kenn dugal ci débat yu amul solo bu ñu deltoo gannaaw rek mooy may nañu Macky Sall fu mu jaare ba faw te kenn dootul noyyi ci biir senegal kenn dootul am aafiya looloo tax nag ma ne waxu procureur sax taxu woon a jóg waaye procureur dafa wax loo xam ne ay wax yu teguwul ci dëgg la may wax sénégalais yi nag procureur bi doon wax tey muy baaxum ku ma xam la ma xam ko daanaka sama mag la ndax yàlla dafa def rakkam bu mu bokkal ndey ak bàyyi doon sama xaritu benn bàkkan lenke ñu ànd jàngandoo première année ba quatrième année université bu ñu jógewaan université ñëw vacances Thiès këram cité la bi dama fanaan dem toog rakk ji da doon ñëw seet si ma ñu dem ba mu doon affaire famille day day ñëw fii sama kër daan na fi ñëw daan naa ñëw këram fii à côté procureur Bakhoum bi waay juróom bu jigéen feebare ñu entré ko fii Ndakaaru sama jabar moo doon togg añ chaque jour ñu yóbbul ko suñu yaaja ba keroog ni ko yàlla moome kon kooku xamantewuma ko su ma waxee nag waxuma ko pour yoole waaye li tax ma wax ko mooy won Sénégalais yi Macky Sall ni mu bonee ci justice su Sénégal ni mu munee jël nit wàcce ko ba ci suufa suufa suuf imma dafa am ay dossiers yu mu téye ci yow doog la fal fi mu la fal nommé la fi mu la nommé ne li ma bë bëgg ngay def wala mu am lu mu la dikk ci xaalis wala ci alal nga topp li muy def foofu la justice bi toll du justice bi yëpp nag waaye ñëpp xam nañ ni magistrat yi bañ yëpp tey sonn lañ ci justice bi gis ngeen mouvement bi passé ñi doon bañ ñëpp jël nañ leen sànni leen fu sori jël seeni nit teg leen ne leen li ma bëgg ci Ousmane sonk nga may defal mooy warul nekk candidat en 2024 baaxum bii bu toogee tey di wax mel ni ku ma xamul di essayer gëmloo Sénégalais yi ni man Ousmane ko terroriste la dama naan àdduna lu doy waar la waaye noonu la makisal Sall mel ak justice ñi fi jox cër yépp ndomb tànk bu tax ñuy wax ci justice bi ku xam seen jaar-jaar ci wàllum magistrature di nga xam ni foofu du woon seen place dossier yi ñu am yépp ci biir magistrature ñëpp xam nañ ko baaxum xamante nañ bu baax ànd nañu ñaani jabar toog nañu naan ataay def nañu lépp moo tax moom li mu wax xam na ni du dëgg moom li mu wax bu ñu daje léegi li may njëkkoo mais sama rak comprendre ma rek li mu wax ci boppam xam na ni du dëgg xam naa ni ay mbokkam yi ma séqal man buñ ko déggee tey am nañ lu leen metti te àdduna dara jarul yenn yi waaye ma dellu si ci li mu wax baaxum dafa wax ni benn man ba léegi ñemewul wax waxul waxul sama wax de man ci li ma wax nii dañ ma doon essayer faagaagal wax na ci El Malick li mu bind wax na ci presse li mu bind waaye ñooñu ñëpp balaa ñuy wax man maa njëkk a wax man maa ne dañ ma doon essayer faagaagal dañ doon essayer faat sama bakkan te ñi ko def waa police la xam nga man li may wax dama koo ñeme man raayantuwuma làqatuwuma li may wax dama koo ñeme ndax koo jàkkaarloog mu taxaw yor li mu yor pomp la ko